Internautes de Sénéinfo.net et Sénéinfo International, bonsoir, bienvenue au résumé de l'actualité de l'actualité nationale. Le chef de l'État a créé un nouveau format intitulé Jakarlo ak Maki qui a pour but des préoccupations des de ce fait souligné dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 9 mars que cette nouvelle stratégie d'écoute et de dialogue avec les jeunes et les autres forces vives de la nation va concerner tous les départements du Sénégal et de la diaspora. Après ces propos mal appréciés par beaucoup de Sénégalais et qui seraient à l'origine de son limogeage, l'ex-délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Pape Amadou Sarr a présenté ses excuses et remercier le président Macky Sall. C'est des propos que je déplore et qui ont été sortis de leur contexte mais qui servaient tout simplement à présenter les conditions de travail dans lesquelles nous sommes. C'est des choses qui, comme vous l'avez dit, ont pu choquer certains religieux, certains marabouts. Je m'en excuse, a-t-il déclaré au micro de la RFM. Il a par ailleurs remercié le chef de l'État. Je remercie le président de la République, M. Macky Sall, pour la confiance qu'il a un moi au cours de ces quatre dernières années en me nommant délégué général à la division spéciale contre la cybercriminalité a démantelé un vaste réseau à Anne-Maris. Il s'agit de 20 hackers de nationalité nigériane qui devraient être incessamment déférés au parquet. Nigérians qui avaient loué un immeuble R qu'ils avaient transformé en bureau avec un lot impressionnant d'ordinateurs sont visés pour association de malfaiteurs, extorsion de fonds et escroquerie en bande organisée en ligne. En effet, ils appâtaient les gens sur les réseaux sociaux avec de beaux profils de femmes avant de leur demander une rançon une fois qu'ils détenaient de, des images ou vidéos compromettantes sous menace de divulguer leurs images. En Afrique, un premier grand accueil a été réservé ce mercredi à Diboli, à la frontière du Mali avec le Sénégal, au groupe de marcheurs panafricains qui avaient quitté Dakar le 16 février dernier pour rallier Bamako, une marche de 1360 km pour protester contre les sanctions de la CDAO et manifester leur solidarité au peuple malien. Le préfet, le maire de Diboli, Le président du comité national d'accueil et les populations sont venus communier avec les marcheurs. La prochaine étape, c'est CAI. Sur l'international, les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne ont échoué jeudi à s'accorder sur un cessez-le-feu en Ukraine au cours de leur première rencontre depuis le début de la guerre, alors que des chars russes sont arrivés aux portes nord-est de Kiev. De son côté, le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a indiqué que la moitié de la population de la capitale avait fui. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.